jigéen ji bu nàmpalee koo xam ne jur ko du doomam nàmpal googee day indi ak araamante ni ko askan di indee ci anam yu bare bari mu ne kon nag bu ñu fexee ba sewum jigéen ji dem ca biir gone gee gone ga toll ci namp nga xam ne weesoogul yaari at mbaa wees na ko waaye yaari at ya weer mbaa yaari ya rek moo cee toppagoon sowum jigéen joo xam ne du yaayam bu àggee ci biiram doon ci sax jigéen joojee daa faatu ba noppi ñu door a nag jël am sowam fexe ba mu àgg ci biir gone gi mbaa jigéen joojee day ci at moom du mag waaye teewul am na mu soow ñu fexe ba soow ma dugg ci biiru gone ga moo xam dañ ko ko mbarxan mel ne jaaral ko ca paxi bakkan ya mbaa ca gémmiñ ga mbaa feneen bu àggee rek ci biiru gone ga li ñuy wax ak nàmpal mbaa li ngay tudd nàmpaale te mu indi ak araamal dal nay am bu ñu jaarale woon sax soow ma ci buntu suufu gone ga waaye nag lañ ca sol daa bari ba nga xam ne doy na ko lekk ba tey kon mu daal di indi ak araamal bu jaaree ci gémmiñ gi moom muy jaar ca kaw wàcc moom ba àgg ci biir ba bu dee ci yoonu Maalik lu mu néew néew rek daal di indi araamal googu waaye nag bu jaaree ci buntu suuf ba moom dañ cee faat mu bari bari waaye boo xam ne dana ko doy ak lekk ba tey it buñ jaxase woon soowum jigéen jë ak meneen soow mbaa boisson mbaa leneen du tee rek bu àggee ci biiru gone ga daal di indi araamal googu jaxase gañ jaxase soowum jigéen jaag leneen bu tee mu indi araamal googu lu may nag dañ koo jaxaseeg leneen te lañ ko jaxaseel ëpp ko lool ba mujj na soowum jigéen jë feeñatu ca xam nañ su ko xamante ci caf ka mbaa xet ga mbaa couleur bi mbaa dara ndax lañ ko boole da ko ëpp lool su boobaa kon du andi ak araamal moo tax mu naa illa an yaxaliba tay bu dafa not alayhi ci moom mu ne nag bu fekkoon ne gone gi dem na ba aaju wu tut nàmp xëy na sax matalagul ñaari at waaye moom dem na ba soxlaatula nàmp ñu feral ko boole ci buñ ko nàmpalee ci yooyu jamono maanaam bu ko jën jigéen nàmpalee itam du andi genn araamal waaye nag lu mu ñàkk ñàkk soxla ween dafay ñu ngi koy nàmpal rek bu ko jigéen nàmpalee mu indi araamal googu buñ jàppoon ne sax mën naa fer soxlaatul dara ci nàmp waaye teewul ñu ngi koy nàmpal cëraluñ ko rek bu ko jeneen jigéen nàmpalee mu daal di indi araamal googu mu ne lépp loo xam ne jege ñaari askan dana tax góor a jigéen araamantee sëy ba tey ak nàmpaale dana araamal araamal gu demee noona bi alquran ne xorrimat aleykum ummahaatukum wa banaatukum wa axawaatukum yi nga xam ne yooyu moom juróom-yaar lañ yoo xam ne jege ñaale ci askan moo indi araamal ga ba tey bu ak nàmpaale amoon it daal di indi araamal gu demee noonu yaay la njëkk a tudd kenn ku ne yaayam araam na ko ci sëy jàppal ne nag ku jigéen xas nàmpal bañ ne yaayam la ndax nàmpal ga yaayi nàmpaaleem joojee maanaam yaayi nàmpalam googee daal na koy araam mi nga xam ne moom la ko yaay ji ko jur araame ba tey doom bu jigéeni nàmpaale it day araam ne doom yi dëgg-dëgg maanaam tey góor gi bu fekkee soxnaam nàmpal na gone goo xam ne waru koo nàmpal soxnaam soosee kon yaay la ci kooke mu nàmpal waaye moom yi nga xam ne mooy jëkkëri jigéen ji daal ne doon bàyyi gone googee xam ne gone ga bu dee jigéen doom bu jigéenam la ndax soxnaam nàmpal na ko bu dee ku góor it doom ju góor la mbokk it noonu la képp koo xam ne jigéen da leen a boole nàmpal rek nga xam ne kon bokk ngeen nàmp daal ne doon sa mbokk bu dee góor sa mbokk mu góor a bu dee jigéen sa mbokk mu jigéen a ndax bokk ngeen bokk nàmp ba ba ngay àgg ci wa banaatul axi wa banaatul uxti mu ne kenn mënta takk doomi mbokkam mu góor mbaa doomi mbokkam mu jigéen jàppal ne koo xam ne yéen a bokk nàmp ci genn jigéen rek bu dee góor sa mbokk mu góor a bu dee jigéen sa mbokk mu jigéen a ba tey doo mën a takk doomam du mën a takk sa doom doo mën a takk doomam du mën a takk sa doom mu ne nag soom nit mu soom doomi aadama moom lañ wax ne buñ ko nàmpalee kuñ ko wër te nàmpal mu indi araamal waaye nàmp bahima du indi ak araamal mel ne ñaari gone bu ñu leen doon nàmpal soowum kéwél wala soowum beneen rabu ca bi àll yi bokkañ bokk nàmp kéwél googee mbaa rabu àll woowee di tax ñu wax ne ñoom ñaar ñooñu ñaari xale yi bokk nañ dara lu tee ñu mën a sëy ba tey lay génne ca weenu jigéen ja bu fekkee dum soow am na lu pour luy génne ci weenu jigéen loo xam ne jàppuñ ko soow loola bu ko jigéen di nàmpaloon ab xale di tax ñu jàpp ne nàmpal na ko nàmpal gu araamal ndax loolu jàpp wuñ ko soow ba tey soow ma àgg ci biir ba la ñu wax waaye nag jël soowam jigéen tus ngale ko ba ci gone ga tus ngale ko rek ba ci gone du indi genn araamal bu ñu nee lépp loo xam ne jege ñaare ci askan da koy araamal ci dencante nàmp ga it baa nga nàmpaale ga it noonu lay def daa am ay benn benn yoo xam ne bu doon ci jege ñaare askan moom day araam bu wér a wér séy ko du mën a am te bu dee nag fii ci nàmpaale moom dana mën am yooyu nag moom la seetee maanaam moom la génnee wàññi ko benn benn bi mu njëkk a tudd mooy koo xam ne ndey la ci sa mbokk mu góor mbaa sa mbokk mu jigéen waaye nampaale rek moo tax muy ndey ci sa mbokk mu góor ma mbaa muy ndey ci sa mbokk mu jigéen mu waaye jege ñaalik askan taxut mel ne bu jigéen ñëwoon rek nampal farak ju góor mbaa farak ju jigéen kon xam nga daal nay soppiku ndeyam ndax ndegam nampa na ko rek daal nay doon yaayam kon jigéen joojee doon na ndey sa mbokk mu góor mbaa ndey sa mbokk mu jigéen waaye yow nag du tee nga mën koo takk bu fekkoon ne nag day ndey sa mbokk mu góor mbaa sa mbokk mu jigéen ci askan moom faaw mu araam la ndax benn muy sa ndey dëgg-dëgg wala muy ku sa baay yoroon waaye nag ndegam moom daa am ko bokkal muy góor mbaa jigéen jigéen bàyyi ko fii ñëw nàmpal ko bañ ne sa mbokk mii kat doom la ci moom ndax nàmpal gi mu ko nàmpal du tax yow mu araam ci yow lam ca teg mooy wa umma wala di wala di ka bu jigéen nàmpaloon sëb sëb xam nga ne kon daal ne doon yaay sa sëb boobee ndax lam ko nàmpal waaye du tee nga mën koo takk te bu fekkoon ne dafa doon dëgg-dëgg yaayu sëb sëb moom dana la araam faaw ndax benn muy sa doom bu jigéen wala muy soxna sa doom ju góor lam ca tegit wa jaddata wala di ka su fekkoon ne jigéen daa nàmpal sa doom kon xam nga ne jigéen jooje nàmpal sa doom moom daal nay doon yaayi sa doom yaayu jigéen jooje itam daal nay doon maam ji jigéen yi sa doom jooju waaye nag kookee nga xam ne dañ ne mooy maam jigéen yi sa doom jooju nampal gi dong moo ko waral lu tax mu araam la waaye bu doonoon maam ji jigéen sa doom ci wàllu askan moom faw mu araam la ndax benn muy sa yaay dëgg-dëgg wala muy yaayi sa soxna moo tax ne bu ñu nee kii de mbokk mu jigéenum sa doom la waaye nàmpaale kese moo ko waral da nga ko mën a takk moom kooku ñu ne mbokk mu jigéenu sa dooma waaye nàmpaalee waral mbokk ga mel ne bu jigéen nàmpaloon sa doom fekk moom jigéen joojee mu amee doom bu jigéen kon doom bu jigéenam boobee mbokk la ci sa doom bii mu nàmpal waaye bu la neexee nga takk kookee ñu ne mbokk mu jigéen la ci sa doom ndax nàmpaale kese moo ko tax a doon mbokkum sa doom te bu doon ci askan moom bu ñu nee kii mbokkal sa doom benn muy sa doom dëgg-dëgg mbaa muy sa doom yi jiitle bu ñu nee kii day yaayi sa bàjjan la mbaa yaayi sa baay bu ndaw la waaye nag ak nàmpaale waral kat muy seen yaay ne du ci askan kookee day kon da nga ko mën a takk ndax la muy nàmpaale ga waaye bu fekkoon ne day ci askan la moom bu ñu nee kii yaayi sa baay bu ndaw la mbaa yaayi sa bàjjan la moom bu dee ci askan benn muy sa maam ji jigéen wala muy koo xam ne sa maam ji góor yoroon na ko bu ñu nee kii yaay la ci sa nijaay mbaa yaay la ci sa ndey ju ndaw waaye nag nàmpaalee ko waral day du ci askan kon da nga ko mën a takk waaye bu fekkoon ne ci askan la moom faaw mu aram la ndax bu ñu nee kii mooy yaayu sa nijaay mbaa mooy yaayu sa yaay ndaw moom te muy ci askan benn muy sa maam mu jigéen mi nga xam ne mu jur sa yaay wala mu doonoon soxna sa maam ju góor ja nga xam ne mooy baayut sa yaay ñi mu settee ci illaa la wax ne moom bu dee ci wàllu nàmp dong dong bu ñu la araam mën naa am nag leneen gaar ca làqu ca ba tax ñu araam la moo tax frabi naa mbirum nàmpaale nag moom daa bay ay sew sew lool mat na di teeylu dañuy jàpp ne góor bu jotee jigéen te man yi génn ci moom góor ga dem ca jigéen ja man yi moomee day sopp ku am soow dana jaxitoo ca soowum jigéen ja saa yoo xam ne nag góor jote naag jigéen bañ ne góor gi wàcc ne man yu ñu jàpp ne kon jigéen ja am na am soow ci góor googee joteeg moom jigéen ja kum nàmpal soow moomee dañuy jàpp ne dal nay doon yaayam ka joteeg moom itam maanaam góor ga joteeg moom ba am ca soow ba nàmpal ko xale boobu itam dal nay doon bàyyi gone ga li feeg soow moom muy jeex rek ku fa jigéen ji nàmpal na mu doon yaayam noonu la góor gam joteeloon ba mu am soow mi di doone bàyyi kookee jigéen ca nàmpal li tax nag loolu doy waar mooy daanaka ca mu dawoon waxut jigéen ji bu jotee góor ba amee cam soow soow moomee kañ lay jeex tëkkuñu ko ci nangameer dañ wax rek ne li fekk soow mooy jeex ci jigéen ja ku fa jigéen ja nàmpal daal nay soppiku doomu moom jigéen ja daal di soppiku it doomi góor googee nga xam ne moo jote woon ak jigéen ja nga xam ne kon góor gi bu xasee jotee jigéen ba jigéen ja amee ci am soow moo xam jigéen ja wutiwaat na jëkkër moo xam wutiwaatu jëkkër li fekk soow moomee jeex daal moom ku mu fa nàmpal rek na ko wóor moom góor gi jote woon ak moom jigéen je na ko wóor ne kookee jigéen ji nàmpal doom la ci moom ci wàllu nàmpaale jigéen mën naa jote góor ba amee tam soow tàggoog nag kooka bañ wutiwaat jëkkër di màppil fenn waaye li fekk soow may jeex rek noonu ñu ko waxee ku mu ca nàmpal mu doomam moom jigéen ji di doomi góor ga jote woon ak moom ba mu am soow ma bu fekkoon na it jigéen dafa jotee góor ba amee tam soow dem nag suyuwaat ci keneen kooku itam joteeg moom mu am itam soow dañuy jàpp ne yaari soow yi jaxasoo nañu foofu mu sëyiwaat doom ju mu fa am day mel ne na ko kookee jure noonu la ko jëkkër ju jëkk jë jure man nga koo misaal yow rek boo yoroon jigéen di joteeg moom mu toll ci nàmpal ngeen tàggoo nag mu dem sëy ci keneen mbaam li sax ci ñeneen ndax mën naa doon ay jëkkër yu bare bari soow yi nga xam ne moom la jëlee woon ci yow daal jàppal ne li fekk muy jeex jëkkër yooyu mu amaat ku ñu am ak jigéen jooju rek ku ñu am ak jigéen jooju ci ay doom day mel ne yow itam bàyyi nga ci ñooñee ñëpp ndax soow mi mu jëlee woon ci yow moo jeexagutoon ni nga ko déggee nag lu ci doy waar mooy daanaka téer yi nangu ñoo wax soow moomu kañ lay jeex nga seetlu ne tey boo yoroon ñaari soxna mati jóob ak mati njaay mati jóob nga tàggoog moom fekk mu yóbbaale sam soow mu amaat nag yeneen yeneen jëkkër am fa itam ay doom jàppal ne li fekk soow mi mu jëlee woon ci yow jeexul rek doom yam amaat te sëy yooyee doom yooyee bàyyi nga ci ñoom na nga moytu nag mati njaay mi nga xam ne moom sa beneen soxna la nga am ak moom doom ju góor mu dem nag bëgg a takk doomi mati jóob moomee nga xam ne moom nga tàggooloon te mu amaat yeneen doom ci sëy yamu demaatoon gannaaw bi mu tàggoog yow nee nan la ndegam yóbbaale na sam soow rek dañuy jàpp ne doom yam am ci sëy yooyee bàyyi nga ca doom yooyee kon nag sa beneen doom bu bàyyi ko ci beneen soxna mënut a dem di takki kenn ci ñooñee ndax xam nga ne kon moo kam bëgg a takk dañuy jàpp ne ñoo bokk bàyyi moo tax ñuy wax ci gàttal naa ku ñu ne sa bàyyi masoon na koo yor mu dem nag sëyi feneen na nga moytoo dem bëgg a takk doomam kon koo dégg ñu ne sa bàyyi mas na koo yor rek te sa xel nekk mukk ci takk doomam doom ji bi ci moom li ma waxoon lay gàttal jigéen ci moom ndegam bi mu tàggu jëkkëram ji yóbbaale na am soow gannaaw ba mën naa am benn jëkkër képp la jot a amaat mën naa am nag mu jaar fa ci ay jëkkër jëkkër jëkkër waaye jàppal ne ka ci jëkk ci jëkkër yi ak ka ca mujj dañuy jàpp ne doom yu jigéen ji am ci sëy yooyee doom yooyu yëpp ñoo bokk ci sëy yooyee doom yooyu yëpp ñoo bokk benn baay ndax soow yi nga xam ne ñoo jaxasoo mu ne sax bu fekkoon ne jote ba day jote bu araam nga xam ne doom ja kenn du ko bàyyale ci yoon te jotee jigéen ja mel njaaloo gu wér ko it bu jigéen ja amee am soow ci njaaloo googee mbaa jote bu araam boobee xale bu mu nàmpal soow moomee rek dal nay doon yaayam moom mi ko nàmpal waaye na góor ga joteeg moom ba mu am soow moomee itam dal nay doon bàyyi ca kookee mu nàmpal moom jigéen ji mu ne bu nattale woon ne jigéen amee na am soow fii mu nekk moo xam ci jote bu dagan la mbaa bu araam gannaaw ba bu fekkoon ne junni góor ñoo ñëw njaaloog moom soow moomee jàppal ne kum ko nàmpal rek dañuy jàpp ne moom jigéen ji yaay la ca kookee mu ko nàmpal waaye nag mbooleem ñi jot a jaaloog moom tamit junniy góor mbaa la ko jiitoon jote ba ko jiitoon te amee ci soow ñu jàpp ne xale boobu mu nàmpal doom la ci ñooñu ñëpp ñëpp ñëpp bu dee ci wàllu nàmpaale te bu dee ci yoon sax xam nga ne moom njaaloo yoo fi jàppee doom ja doomu yoon ba di ko doonloo mbaa dara waaye nag bu dee ci wàllu nàmpaale moom lépp lépp lu nàmpaale daan araamal rek da koy daal di araamal nàmp gii sax mooy tax ñu naa boo amee doomi jiitle maanaam koo xam ne sa soxna da ko fa àndaale lay tax mu mën a féeg kenn ci sa njaboot mooy ba fa yaayam di ñëw fikkul mu di ko nàmpal waaye bu fekkee da ko doon nàmpal nga xam ne yow jote nga ak moom mu nàmp sam soow day daal doon sa doom yow itam kon ñu takk ne doomi jiitle balaa mën a féeg kenn ci doom yi kooku yor yaayam day fekk ba mu koy ñëw nàmpa tut fekk mu bàyyi woon nàmp moom mi nga xam ne moom la jigéen ji nàmpal boo ko yemalee ay mbokkam jàppal ne yow boo tuddoon Cheikh Diop nga bokk ak ku tudd Mamor Diop ngay ak baay ku ñu wax xaddi sil nàmpal sa mbokk Mamor Diop Mamor moom nàmpal moom daal ne doon doomam nga xam ne du mën a séy ku xaddi sil jur du mën a séy kenn koo xam ne jëkkër yu xaddi moo ko jur moo xam la njëkk nàmpal ga la moo xam la ñëw ci gannaaw nàmpal ga la waaye yow mi nga xam ne nag xaddi sil nàmpalu la mën ngaa takk xaddi sil ci boppam mën ngaa takk ay doomam dara du la laal ca araam nàmpaale ga waaye nag maam ma jóob mi nga xam ne moom moom la xaddi si lu nàmpal na mu araamee ci xadeeg njabootam ak njaboot ga bàyyi ko ci jëkkëram ba tey ku maamoor jóob jur noonu la ñuy mel ci xaddi si lu moomu ak ña jur xaddi ak ñi nga xam ñoom la xaddi jur ak bàjjeni xaddi si lu moomu ak ay ndey lu ndaw danay bëgg wax nag ay benn benn masala yoo xam ne mën naa mu bett la lool nga jàpp ko ni mu ko waxee bi mu njëkk a wax mooy bu jigéen nàmpalee xale bu góor boo xam ne masoon naa doon jëkkëram maanaam xale ba ci nàmp dong la toll woon waaye nag moo doon jëkkëri jigéen ji nga xam ne gannaaw ba mu tàggoo ko xale bu góor bi la dem séeg geneen góor ba am ci am soow nag ñëw dal di nàmpal xale bu góor bii nga xam ne mas naa doon jëkkëram bu nàmpalee xale bu góor bii nga xam ne mas naa doon jëkkëram dañuy delloo si doon gam doonoon jëkkëram jàpp na it ndegam nàmpal na ko doomam la doom la it ci jëkkëram ji nga xam ne moo ko yor su boobaa nag moom jigéen ji day daal di araam ci jëkkëram ji ko yor ndax day daal di soppiku soxna doom ci góor yi jëkkëram boo ci bëggee joxe misaal nga jàpp ne yow ci sa bopp yow Ahmadou Diop da ngaa amoon doom ci tudd Modou Diop ju toll ci nàmp nga daal di koy takkal soxna su tudd Mati Diop ndax bëgg Mati Diop moom magum jëmm la toll ci sëy waaye nga bëgg nag mu yoral la sa doom jii di Modou Diop nga dem ba yàgg nag nga dindi sëy bi Mati Diop moomu daal demaat wutiwaat jeneen jëkkër ju tudd Moussa Diop Moussa Diop joteeg moom ba mu am ci am soow daal di ñëw nag nàmpal Modou Diop mii nga xam ne mooy sa doom ji nga ko mayoon muy soxnaam buy nàmpal rek Modou Diop ñu jàpp ne dal lay araam ci Moussa Diop mii nga xam ne moo doon jëkkëram ndax xam nga bu nàmpalee Modou Diop dañuy seet ne Modou Diop mas naa doon jëkkëram te bi mu ko nàmpalee dal lay doon doomam di doom it ci Moussa Diop Moussa Diop kon léegi Mati Diop mi da koy daal di araam ndax Mati Diop daa soppiku soxnas doomam ju góor doom ju góor ji moom muy Modou Diop mii nga xam ne soxnaam muy Mati Diop nàmpal na ko bu mu ko nàmpalee daal di doon yaayam moom Moussa daal di doon baayam moo tax ñuy caxee di wax naa jigéen ju nàmpal xale bu góor rek daal di araam ci jëkkëram ja ko yoroon jigéen joo xam ne daa nàmpal ab xale bu góor rek daal di araam ci jëkkëram ji nga xam ne moo ko yore woon loolu nu mën a amee mooy nii ci sew sew yi day wax ne boo takkoon xale bu jigéen bu toll ci nàmp rek daal di koy fase mu ne boo takkaatee beneen soxna jotee soxna sa ba mu am ci yow soow mu dem nag nàmpal xale bu jigéen bi nga xam ne moom nga takkoon tam toll woon ci nàmp sa soxna sii day daal di araam ci yow ndax soppiku na yaayi sa soxna soppiku na yaayi sa soxna ci misaal boo takkoon sooda jóob muy gone guy nàmp fase ko dem takk nag jobbe njaay ba jobbe njaay am ci yow soow dem nag nàmpal sooda jóob mi nga xam ne moom nga takkoon ca ba muy nàmp ndegam jobbe njaay mi sa soxna nàmpal na ko rek jobbe njaay daal di soppiku yaayi sa soxna xam nga ne nag kenn mënta takk yaayi sa soxna ndax danga ne woon boo xasee takk jigéen rek doon sax jotewu leen dara yaayam ak maamam jëm ci kaw ba ci aadama day daal di araam alxaqdu xalal banaat yu xarimul ummahaat takkoon nga sooda jóob tàggoog moom ñu delloo si nag parce que nga ko mos a takk sa soxna si nag bi mu ko nàmpalee ba mu doon doomi sa soxna rek kenn sañ ca seeg yaayi sa soxna sa soxna si jobbe njaay soppiku na yaayi sa soxna sa woon beneen sew sew la ku takkoon jigéen mu wéet ak moom waaye nag jote ga agul ci man yu génn ni ki bopp sawukaay ba rek moo dugg mu daal tàggoog moom tàggoog boo xam ne amut fayli jigéen jooje dem sëywaat ak geneen góor ba am itam soow soow moomee la ne bu ko nàmpalee xale bu jigéen bu toll ci nàmp rek xale bu jigéen boobee da daal di araam ci jëkkëram ji jëkk ji li tax mooy day doon doomi jiit la ci moom doomi jiit la joo xam ne jot naa yéet ak yaayam ndax xam nga doomi jiit la yéet ga ak yaay ja mooy tax mu araam la ci misaal yow boo tuddee góor a sëy takk jigéen ji tudd njóoba njaay joteeg moom jote boo xam ne bopp sawakaay bi rek moo dugg man yu génnut nga daal di koy fase mu dem séyeeg góor a njaay góor a njaay moom nag moom dem na ba am ak moom soow soow moomee la ne xale bu jigéen bu tool ci nàmp bu mu ko nàmpal rek yow góor a sëy doo mën a takk xale bu jigéen boobee ndax day soppiku sa doomi jiitle ba dañuy seet ne mas ngaa yore yaayam ba tàggoog moom léegi sax yoratoo ko waaye jaar gam jaaroon say loxo nga takkoon ko mooy tax bu amaatee feneen soow xale bu jigéen bu tool ci nàmp bu mu ko nàmpal rek ñu jàpp ne doom la cëw li ñuy wax doomi jiitle mu ne bu fekkoon ne dangaa takk ñaari soxna ñoo xam ne dañoo toll ci nàmp rek sa soxna soo xam ne jot ngaa wéet ak moom nag ba am ca bànneex ñu nàmpal sa ñaari soxna ñooñu mu nekkoon sa soxna see nàmpal araam na ci yow sa ñaari soxna yii mu nàmpal dañ toll woon ci nàmp it ñëpp araam nañ ci yow soxna su mag si nga xam ne moo nàmpal moom daa soppiku yaay sa ñaari soxna te dañu woon alxaqdu xalal banaat yu xarimul ummahaat ñu li xasee may jigéen rek yaayam dal na lay araam ak maam ak ba ca aadama kon nag moom si soxna su mag si nga xam ne moo nàmpal su ñaari soxna ñu toll woon ci nàmp daal di sopp ku seen yaay kon léegi daal ne doon yaay sa ñaari soxna yi te nag bu ñu xasee may jigéen rek doon coti wala moom dara yaayam ak maam jëm ci kaw ba ci aadama daal lay araam li tax nag sa ñaari soxna yi nga xam ne ñu toll woon ci nàmp wëlbatiku araam ci yow mooy dañoo soppiku sa ñaari doomi jiitle yoo xam ne jot ngaa wéet ak seen yaay ndax kii leen nàmpal mooy soxna si nga xam ne jot ngaa wéet ak moom mu dóor leen a nàmpal ne comme yaay la ci ñoom ndax nàmpal jum leen nàmpal kon ñoom ñaar itam soppiku nañ sa ñaar doomi jiit la yoo xam ne jot ngaa wéet ak ba bànneexu ci seen yaay mooy sa soxna si nga xam ne da nga koo takk rek waaye jotewu leen dara bu fekkoon ne moo dem nàmpal sa ñaari soxna ñoo xam ne dañoo toll ci nàmp rek waaye gis nga ne moom mi leen nàmpal ak may rek moo dox seen diggante mu ne kon dañuy jàpp ne da nga nàmpal na ñaar ñëpp ay mbokk yu jigéen lañ dool mën a booleeti def leen soxna waaye mën nga caa tànn kenn ku la neex boole nga mënunta amati ndax li ñu soppiku bokk jenn yaay ngir nàmpal gi doo mën a boole ñaar ñëpp yorandoo ñu di ay soxna waaye tànn ku la neex ba tey bu fekkoon ne jigéen ju nekk ab jaambur maanaam du sa soxna du dara moo ñëw rek fekk sa ñaari soxna yoo xam ne dañoo toll ci nàmp mu daal leen di nàmpal ba mu leen nàmpalee daal nañuy bokk yaay ba tey kon doolu mën a booleeti yorandoo ñuy sa ñaari soxna da ngay tànn rek kenn bàyyi ko ci des walaw ta ak xarat ak doonte mujjoo na nag day wane ne ñaar ña moom ku la ci neex ngay tànn doonte sax kam mujj nàmpal mbaa kañ la mujj may ci ñoom ñaar du tee mën nga koo tànn mu ne nag ku nàmpal ba tax nàmpal ga yàq sëy borom sëy ba mel ne kii nga xam ne moo fekk ñaari soxna yoo xam ne dañu tolloon ci nàmp mu daal leen di nàmpal ñu wax ne kon ñaari gone jigéen ñu doon nàmp bokk nañ jenn yaay nàmpaale nga xam ne kañ leen mayoon muy seen jëkkër su fekkee ne kii leen nàmpal soxnaam la soo xam ne jot naa wéet ak moom ni nga ko waxee woon ñett ñëpp araam ñaari ñu toll ci nàmp dem takk leen ak soxnaam see nga xam ne moom la wéetal mu ñëw nàmpal leen te ne woon ñett ñëpp lay araam kon xam nga sa soxna si nga xam ne moom nga takk ba wéet ak moom yàqal na la su ñaari soxna yi nga xam ne ñoo toll woon ci nàmp lu mel noonu la ne bu fekkee da nga koy def moo ko tey te laa bëggoon a yàqal rek su ñaari soxna yee kon daañu ko yar ba bu ëllëgee mu bañ koo defati su fekkee ñàkk xam a tax nag ñu bàyyi ko ndax ku xamut moom xamul rek ñaar ñuy sëy buñ bokkee wax ne nun day nàmpoon nanu nàmp guy tee nu mën a sëy buñ ko bokkee wax moo xam fekk nañu maye ba noppi moo xam fekk na mayeguñu dañuy jàpp seen wax joojee su fekkee mayeguñu bu ñu maye su fekkee nag maye woon nañu nañ ko dal di dindi ba tey jëkkër ji nga xam ne kàllaf la bu ne kii ñu ma may day mbaa kii ñu may bëgg a may day nàmpoon na mag moom mu wax ko njëkk ñuy maye ak mu wax ko ci gannaaw ñuy maye ñoo yemoo gannaaw ba ñu mayee ba noppi te wéet amagut bu jëkkër ji ne kii ñu ma may day nàmpoon na mag moom soxna si weddi ko ne nàmp nu woon waaye nag seere amut dañuy jàppe jëkkër ji li mu wax ne nàmpoon nañu daal di tas sëy bi bëgg la sax wéet amagut waaye buñ tasee sëy bi dañ koy fayloo genn wàllu can xa dañuy jàpp ne dagam moom nee na ci gannaaw maye gi te wéet amagut nàmpoon na maag moom xëy na daa daa bëgg yoon tas sëy bi te joxente genn wàllu can moo tax dañ koy joxeloo genn wàllu can mu bokk ci yetti masala yi nga xam ne daañu tas sëy ba fekk wéet amagut te du tee ñu joxeloo jëkkër ja la mu war a joxe bi nga wax ni mooy jëkkër ji gannaaw bañ mayee ba noppi la wax ne nàmpoon na maag sama soxna sii fekk ba wéet amagut te amul ay seere bu fekkoon ne nag laata ñuy mayee la wax loolu ne kii de li mu koy bëgg a may waaye nàmpoon nanu kañ koy bëgg a may weddi ko bu ñu dàlloon maye sëy ba laata ñuweet yoon tas ko itam ne war a sukkoon a def di sax jëkkër ja war a joxe dara nga xam nga bi muy saxal ne kii nàmpoon na maag moom boobu bi yoon maye amagutoon jotagu woon a maye xab lan xaq di la woon kon nag bu ko yoon tasee ci gannaaw maye ga li warta am te gis nga ne wéet amut kon jëkkër ji kenn du ko joxee loo dara bu fekkoon ne nag dañoo wéet ba àggal mu door a wax loolu kon daañu topp ci waxam ji tas sëy ba waaye nag lépp can ga lay joxe ba mu mat muy góor ga muy jigéen ja bu waxee nàmp gum nàmp ak kee muy bëgg a séqal sëy ba mbaa comme séqal sëy ba te delluwu ca gannaaw kon amut lu ñuy laaj ay seere waaye nag bu fekkee ne moom ma waxoon ak nàmpaaleem ak ka ca des dafa weddi ni waxu ko woon nag kon ay seere ñooy seere saxal ne waxan na ko bu wér a wér kon daañu aajowoo seere yi ngir ñu saxal ne moom mii kat waxoon na ne nàmp naa kee jigéen ji ñu bëgg a may jëkkër bu ne kii ñu may bëgg a may day nàmp na maag moom nàmp koy tee nu mën a ànd ci sëy te gis nga ne booba mayeeguñ kon dañuy bàyyi maye ga dañuy jàpp waxam jooju ba duñ ko xalaata maye waaye nag moom jigéen jooju su bàyyi woon bu ñu maye ba noppi mu door ne kii ñu ma may day nàmpoon na maag moom waxam joojee kenn du ko faale dañuy jàpp ne daa bëgg a génn ci sëy ba rek moo tax mu wax ko ndegam soxna si amul ay seere moom kenn du tas sëy bi balaa mën a génn ci sëy ba daal jot boppam mel ne fay alal mbaa jëkkër ji seet seet jekki-jekki fase ko bu ko fasee te wéet amagut du ko war a jox dara ndax ndax ko topp ni jigéen ji waxe sëy bi wartoon na am su ko fasee gannaaw bu wéeteeg moom nag war koy jox can gu mat da ngay dellu ci ñaar ñi nga xam ne ñoo séq ëpp sëy buñ bokkee wax ne nun dey nàmpoon nanu kon dañoo dëggalalante te kon ñoom ñaar ñoo bokk xam wala am na ñaar ñu wax ne nun dey ba ñu fësagul sëy bi déggoon nañ ñoom ñaar ñii ñu wax ne nàmpoon nanu kon ñu bokk xam ñoom ñaar moom mën naa doon kenn ku ne wax ci làmmiñam ne nun nàmpoon nanu ñoo bokk xam wala it am ñaar ñu seere ne diw ñii day bañ leen mayeegut déggoon na ñu bokk wax ne nàmpoon nañu yooyu yaar boo ko seetlu moom bokkoon nañu xam ñu bokkoon umpale ko nag mën naa doon ñaari seere yu maandu seere ñoom ñii day nàmpoon nañu fekk na nag ñoom ñaar ñoom xamuñu ko woon mos ñoo wax lii nuru loolu waaye am na ñaari seere yu maandu yu seere wax loolu ñu bokk xam ñoom ñaar ak ñu bokk umpale ñoom ñaar ak nag góor gi ci boppam dong moo xamoon nàmp nga ñu nàmp di jigéen ji xamu ko woon ñett tomb yooyu ñoo bokk àttee mooy bu fekkee ne góor ga xës na jotee jigéen ja can bi ca mën a ñàkk can gi ñu waxante woon la koy jox bu fekkee waxuñu woon genn mu jox ko canu kem mu des benn tomb nag mooy jigéen ji rek moo xamoon ne moo jëkkëram ji ñu ko may nàmpoon nañu di góor gi moom xamu ko woon jigéen ji nag xam ko moom dong ba noppi bàyyi jëkkër ji ñu ko may wéet ak moom su boobaa gën gaa néewi can la koy jox moo tax mu tudd rubu diinaar kaaru diinaar su wax ji naree guddi coow nga ne bu ñu nee seenu nàmp ñoom ñaar ñi sax na moo xam ku nekk da koo wax ñu bokk ci ànd mbaa dañ koo bëgg a weddi waaye am na ay seere yu seere ne wax nañ ko njëkk ñu fas sëy bi mbaa ñoom xamuñ ci woon dara waaye gannaaw bi ñu mayee ba ñu wéet rek la ñaari seere yi maandu seere ne ñoom ñi kat nàmpoon nañu ba tax ñu tas sëy ba nde ñoom xamuñ ci woon dara ba ci wax sax lu nuru loolu ndegam rek wéet am na ñu door a tas sëy yi moom am na ñetti tomb yoo xam ne jëkkër ja da cay joxe can gu mat sëkk te mooy fekk ñu bokkoon xam ñoom ñaar ak ñu bokkoon umpale ñoom ñaar ak moom góor gi rek xamoon benn tomb nag mooy jigéen ji rek moo xamoon ba noppi war jëkkër ji daal di wéet ak moom te dañ ko joxe gën gaa néewi can kaaru diinaar waaye bañ bokkee xam ak bañ bokkee umpale ak bu góor ga rek xamee moom te wéet am ba noppi ñu door a tas sëy bi moom can gi waxante woon moom la jëkkër joy joxe fekk fekkee waxuñu woon genn can nag mu joxe canu kem gone ga nga xam ne moom la ñuy bëgg a may soxna kenn ci ay waajuram laata ciy maye bu waxee ne ñu ngi ko bëgg a maye de waaye nàmpoon nañu kenn ci yaari waajur ya mën naa doon baay ba mën naa doon yaay ja gone ga ñu bëgg a may soxna daal kenn ci yaari waajuram bu ne ñu ngi koy bëgg a may kii de waaye nàmpoon nañu waaye fekk na boobu mayeeguñu moom nañ daal di bàyyi maye ga bu ñu nee waxam yooyu dañ koy jàpp ba dee su maye bu ñu maye itam faaw ñu dindi may ga bu ñu may woon ba àggal nag mu ne man de maa waxoon ne kii ñu koy bëgg a may nàmpoon naa moom waaye boobu sëy bi ma neexutoon rek ci dëgg-dëgg nag nàmp gi moom amutoon dañuy jàpp rek waxam ji jëkk faaw ñu dindi may googu loolu mu lay di su ko déglu dafa wax nag kenn ci yaari waajur yi gone gu góor waaye gone gu jigéen noonu la mel bu doon nag moo xam ne sax ki koy maye sañ na koo forcé utul ko jëkkërit noonu la mel kon muy gone gu jigéen nga muy kañ sañ a forcé mu sëy laat ñu koy maye bu kenn ci yaari waajuram waxee ni ñu ngi koy bëgg a maye de waaye nàmpoon nañu dañu daldi bàyyi maye ga te bu fekkee ne maye nañu itam faaw ñu dindi may ga mu ne góor ak jigéen ñuy ñaar bu ñu seeree ne kii ak kii day nàmpoon nañu te fekk na loolu ñu seere ne ñoom ñaar ñii nàmpoon nañu nàmp ko tey ñu mën a sëy siiwoon na njëkk ñuy maye moo xam ci ñoom ñaar la siiwee wala ci ñeneen la siiwee waaye moom dégg na ñu koy wax ba mu siiw wala ñaari jigéen ñu maandu ñoo seere loolu ne ñaar ñi day nàmpoon nañu te moom it lu siiwoon la ñu daa ko wax njëkk ñuy maye mu nekkoon nàmpaale googu sax na bu fekkee maye wu ñu woon duñu sañ a maye bu fekkee ne maye woon nañ it nañ ko dindi góor ga ak jigéen ja bañ seere loola wala ñaari jigéen ña bañ seere loola te fekk mu siiwoon njëkk ñuy maye moom duñ sarti ca góor ga ak jigéen ja ñu mbaandu boole ca dagam siiw gi am na rek ba te ñaari jigéen ñi it noonu dagam siiw gi am na rek duñ ca sartati ak mbaandu ànd ca dafa am nag ñu ca sartaale ak maandu am ca moo tax mu ne xalal arja la gën a wóor daal mooy duñ ca sartaale ak maandu ndi am na ñu ca bëgg a sart ak maandu ànd ca ñaari góor yu maandu moom buñ xasee seere ne ñaar ñi day nampoon nañu namp ko te ñu mën a ànd ci sëy loola dal na yàq seenu sëy ñoom ñaar ñooñee su fekkee fasuñu woon maanaam mayewuñu woon duñ sañ a maye bu fekkee maye woon nañu it faaw ñu dindi ko moo xam loolu ñu wax ci nampaali seen diggante siiwoon na am siiwutoon ba tey genn góor gu maandu ak ñaari jigéen bu ñu àndee itam seere ne ñaar ñu nampoon nañu it noonu la mel faaw rek nampaale googu sax ba bu fekkee mayewuñ woon duñ sañ a maye bu fekkee maye woon nañu faaw ñu dindi ko nga seetlu bi mu ne lay tax namp nga sax mën naa amee ci genn góor ak benn jigéen teg ci sax ñaari jigéen door a wax nag ne ñaar ñu góor ñu maandu mbaa genn góor mbaa ñaari jigéen ànd ak genn góor ga ba ko dee seet daa mel ne mën naa njëkk a tudd ñaar ñu góor ñu maandu ñi ak genn góor gu maandoog ñaari jigéen waaye dañuy wax ne mbirum nàmp gi moom dañ cee jiital jigéen moo tax nag mu njëkk a tudd wa sabata bi rajulin wa imraatin wa bi imraatayni in fasha qabla al xaq di door a jàll nag ci wa bi xadd lay ni aw xaddlin wa mar atay ni mutlaqan bu fekkee ne jenn jigéen dong moo wax nàmpuk ñaar ñooñu bëgg a sëy waaye jenn jigéen dong la doonte sax loolu mu wax si woon na njëkk mu di ko wax it waaye jigéen jooju amul ko ñaareel du góor du jigéen mel na moom dong la kenn du jàpp waxam joojee lu may nag mooy yaay gone ga ñuy bëgg a may soxna mu ne nag sama doom ji ñu ngi koy bëgg a may soxna sii waaye nàmpoon nañu te bi mu koy wax booba fasaguñu sëy ba te it fekk na loolu siiw boole ci daga moom mooy yaayam mooy yaayu gone ga te bi mu koy wax booba mayeeguñu te loolu itam fekk na mu siiw kon nàmp ga sax na day war ñu bàyyi bañ a fas sëy ba mu ne nag fu ñu fi tudde ne ak nàmpaale am na ci diggante ñaar ñii te nañ ko waxee ci yoon moom yoon mënu koo saxal mënta saxal nàmpaale ga koy rek lañ gën a taamu mooy bañ a fas sëy ba ndax ndegam xas suñ ko wax rek daal lay indi am lënt te nag moytu am lënt moom bokk na ci yi nga xam ne day taxa rafet diine